bonsoir tout le monde bonsoir madame et monsieur ñoo ngi fi nga xamante ni moom moo di euh, boulevard général de Gaulle ñu gën ko xamee ci centenaire waaye ñoo lànk la ñu tuddee mouvement ba tax ay mouvement yu bëri daal di leen fekk si lu mel ni aar lu ñu bokk lu mel ni euh, lu mel ni lu mel ni euh, waa Y'en a parce que ku ne Y'en a marre di nga fa wax Simon di nga fa wax ñoom Fou en tout cas ñoo ngi fi nga xamante ni fi la ñuy marché boulevard général de Gaulle ñu daal démarré euh, démarrer fi nga xamante ni moom moo place de l'obélisque ñu gën ko xam tey ci euh, place de la nation euh, ñu daal di fas yéene dem fi nga xamante ni moom rond point RTS ñoom nag lan moo waral doxu ñaxtu bi mooy les détenus politiques ku ne les détenus politiques sa xel dem ci docteur Babacar Euh, Diop depuis Thiès ak ki nga xamante nii moom moo di euh, Guy mari Sagna di activiste boobu noonu noonu bañ leen jàppeek léegi mën na fukki fan ak juróom mais boobu ba léegi euh, ñëpp ñoo ngi toppi ba tax na tey da mouvement bi nga xamante ni dañ ko tuddee ñàkk maanaam dañ ko tuddee collectif boo xamante nii tey ñoom dañuy xeex lépp loo xamante nii dafa bokk ci wàllum yokkute courant bi ak ñi nga xamante ne dañ leen a téye ba tax na groupe seen kàddu ànd seeg yéen fas yéene leen woon lépp loo xamante ne nii rek moo ngi xewee tey fi nga xamante ne nii moom moo di euh, boulevard général de Gaulle en tout cas ñu dem ñu xool li nga xamante ni moom la ñu fas yéene waxtaanee fële nga xamante ne nii moom moo di rond point RTS ngeen ci ànd ak seen groupe seen kàddu. déjà pour méttitlu suñu ay xarit la ñu mën a wax ay mag yu ñu jàpp muy docteur Babacar Diop di Guy Marius Sagna ne tey bu doon étudiant yooyu nga xam ñu xeex buntu pale di buux ay GMI bu ñu leen jàppoon tey amaana duñ fi nekk bu doon euh, waa APR yi doon xeex biir palais de la République bi nga xam ne waa Sénégal yëpp a ko bokk bu doon dañ leen jàpp def leen ci kaso bi tey amaana duñ fi nekk bu doon nga président de la république audio yaa ngi fu nekk di daw ci whatsapp yi bu ko amaana fi donc ñoom Guy Marius Sagna defuñu genn wàllu genn genn donc du yoon tey ñu leen di retenir donc loo tax ñu ñëw tey fas yéene dox doxum ñaxtu pour na et tamit continuer combat mi ne du yoon ñuy suñu électricité du yoon ñuy yokk suñu électricité donc loolu moo ñu fi indi loolu moo ñu fi tax a ñëw événement bi gën am importance ci Sénégal tey ji mooy li am le 27 septembre ci Ndakaaru xam nga loolu pour man loolu moom mooy tax ñi ñëw fi ñëpp ak ñi toog seen kër yi di waaj ñëw dañu bëgg a jëmmal defaraat jikko yi bi defaraat jikko yi nag ci Masalikul Jinaan la jaar xam nga moo tax muy Guy Marius muy Babacar Diop nga xam ne ñoo bokk université muy yeneen jeunes yi étudiants yi seen jikko

garmi ajama taw yëpp liko jëmmal tay moy li xew ci Sénégal le 27 septembre manam inauguration Massalikal Jinaan kon xam nga ne euh, ñi dem keroog di inauguré Massalikal Jinaan xamuñu ñom li Massalikal Jinaan bo démé non lank non lank libéré libéré libéré libéré libéré libéré les otages les otages libéré libéré les agents là, devraient cotiser, non mmh. On se bat aussi pour leur famille, mmh. ou bien xanaa war na mat 1 million de personnes hein? matu ko mat na 1 million. matu ko mën a jaar mat 1 million. car car gisulen fi car gisulen fi dara sénégalais ñoo passer sen bopp ñëw mobiliser lolu moy d'abord premier succès bo xamantene am nañ ko benen bi moy le fait que sénégalais ñu xam ne ne lii gouvernement bi yëkëti suñ ko seetaanee fu mu jëm moy sa ñu lajjee rek ci sen politique ñu xool nan lañ koy téxé ci population yi loolu nak mënul continuer ñoo xamante ne ne wutaloo leen liggéey ñoo xamante ne teg nga leen coono ñoo xamante ne seen pouvoir d'achat bëriwul tey am nañ ay jafe-jafe seeni kër ñuy muñ loolu amoo looy xalaat leneen lu dul naan da ngay yokku euh, électricité bi loolu la ñu wax d'accorduñu si mënuñu si nangu mënuñu ko nangu moo tax ñu ñëw ànd ak sénégalais yi pour manifester. beneen bi mooy lu mel nii su amee sénégalais yi si boppam jug ne dañuy xeex ne d'accorduñu si mu am ñu ñu jël. dugal leen ci kaso bi loolu tamit dañ ne ñaaw na ci réew mu mel ni démocratie parce que ñoom Guy Guy Marius Sagna professeur Babacar jóob ak ñeneen ñëpp ñoo xam ne xeex nañu li ñu def.

On ne peut pas accepter qu'on met en prison. Les ko ci yoon nañ li manifestation hausse des prix électricité mburu courant essence lépp lu nañ ko mu xam nga ajustement structurel lañ mal gouvernance bi aussi taxna ñepp ñëpp lolu mo ñu nu pour Macky Sall xolaat nan la yoré sunum réew ni ko yoré neexul patriote lolu mo tax ñepp jox merci beaucoup jërëjëf jërëjëf tous les patriotes sont sortis aujourd'hui qui sont conscients de la situation politique du Sénégal il y a le prix la malgouvernance le gaspillage des ressources le problème du courant

waa ñoo lànk ñoom réussir nañ li nga xamante ni loolu lañ bëggoon mooy seen objectif génne plus de un million de sénégalais parce que ba ñuy tijji sànq nee nañ leen même bu un million it jege na ko wante tabaar fi kàllaa allah gis nañ mbooloo bu takku en tout cas ci boulevard bi nga xamante di boulevard bu centenaire gis ngeen fi ay part gis nañ fi parti politique yu bëri yoo xamante ne nii tey ni boo leen naree lim da ngay juum ba tax na euh, population sénégalais bi yëpp génn nañ wane li nga xamante ni moom mooy seen xol ko fi nga di boulevard centenaire bi di général de Gaulle ñi gëj a gis li nga xamante euh, bu takku di génn ci manifestation yu mel ni gëj nañ kaa gis wante tay mouvement bi nga xamante ni dafa sos juddu bes tuddu ñoo lank ñom réussir nañ li nga xamante ni moom moo mission ba tax na groupe sen cadre lokolo seeg groupe SPC solution de bonne communication ñoon fi won len lepp lo xamante ni fii lay xewé tay tay nekkoon vendredi le 13 euh, décembre 2019 réussir nañ li nga xamante ni moom moo mission en tout cas le Sénégal pays la bo xamante ni pays jàmm ak salam la le marché pacifique lépp loo xamante ni waroon nañ ko def waroon ko wax autorisé nañ leen ko ñëw nañ taxaw wax ko ñi ñaa ngi dellu ba tax na groupe seen kàddu lépp lum dikk ay internetam dinañ ko def ni mu waree di la jaajëfal ba beneen yoon incha allah merci beaucoup toute la population sénégalaise.